yu baax nangu mu ñel sëriñam mu ñel maam Ousmane barke mooy ca mbokki julit ci mbokki taalibe yi asalaamaaleykum ci ndigalu sëriñ Babacar Sy Mansour xali général des Tidianes ak mboolem njabootu cheikh Seydil Hadji Malick Sy fondation Mame Fawade Wele ci njiital soxna Umul Xayri Sy ginnaaw bi mu amalee tournée ci mboolem cellule yi nekk ci réew mi ak bitim réew ñooy organiser journée internationale Mame Fawade Wellé mu yemook dimanche le 6 novembre 2022 ca dëkk bu tedd ba ci waa woonu fiihal yumnu lil mutayaamini ca grande salle de conférence ba programme ba bu 8 heures jotee daañu ko tàmbalee jàng ay kaamilu alquranul karim bu 9 heures jotee ca la ñuy amal mise en place dalal mboolem invité yi jógee Porokhane yi 10 heures ca la conférence bay tàmbali tomb waxtaan bi di soxna Wele une référence dans un monde en perpétuelle mutation ñay amal animation ba di tàggkat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nekk Tiwaawoon ak gaaya ci bés boobu daañu fa rendre hommage soxna Asiatu Si radiyallahu anha moom mi taxawaloon fondation soxna Maam Fawad Wele bés bangook journée internationale Maam Fawad Wele organisée par fondation Maam Fawad Wele ci njiital soxna Umul Xayri mu yem ak dimanche le 6 novembre 2022 ñu koy amale ci Tiwaawoon ci grande salle de conférence bi ñu ngi ciy sàkku teewaayu bépp julli